Amadou Ba ci ginnaaw nit la nekk dañ ko indi mais gis nga bés bu bu ñu sàggane caaxaan sànku lànk lonku torox tortu ba juum ba bàyyi ñu def luñ bëgg def ba teg fi Amadou Ba bu boobaa nag moom day indi équipe am moom tamit am na yeneen booy yu yàgg xeex ndax moom yoo xam ne amuñu place parce que du équipe am falu guñ te bu équipe am faloo moom day indi ay nitam di bu boobaa falu na. ak lu Macky Sall mën mën mën dootu ko mën a tële dara parce que mooy président bu boobaa Macky Sall mën na wax sax mën na ko dul fessee taxawel ne moo day indi moom tamit ay nitam nitam yooyu indi ay nitam affaire bi chaîne la Sénégal loolu la Sénégal break moo fi amagul ab baadoo la ay fal mu dem indi gelam indi cagaam indi jabaram indi ñaareelam indi ay suqam indi ay coggam indi ay markatu taatam ñooñu dañuy ñëw parce que sénégalais bu ne bu yeewoo bëgg na ñu ñu taggal ko maamam sauf man sénégalais bu nekk bu yeewoo bëgg nañu taggal ko maamam sauf man man bëgguma ko taggal sama maam parce que loolu saaga ndey mu mu dund ba day nii damay taggal sama maam sama maam bu dee ba ñu sax yi lekk ko ba yax desetu nga nga nga ma koy taggal quoi ça montre que man def ma fi dara moo fi defoon lu war a tax man ngay tagg man man ngay wax man yow yaay def lii yow yaay sa jaloore lii nga may taggal koo xam ne dee na 1832 1700 wala 1600 sax yi lekk nañ ko boo demoon ci bàmmeelam doo fekk tus kooku fu nekk ni mi ngi xool nu muy lijjantee yàlla nga may tàggal kooku man moom bëgguma ma tàggal sama maam loolu danga may saako ku ma tàggal sama maam ma noq la parce que comme si man sama dund amul benn njëriñ def ma dara ci kaw suuf ba nga may tàggal ñoo xam ni ñoom ñoo fi def loo xam ni bàyyi nañ ko fi mais man mi nekk fii sax mënumaa def dara wala balaa ñu laa tàgg da ngay dee mais sénégalais bu nekk bugg nga toog ci pouvoir indi say nit ñoom tam ñu toog di warax di lekk di teg di bu boobaa nag deux dames ngeen di am deux première dames ngeen di am dégg naa maa ngi maa ngi te wax na mu profité sax wax ko Amadou Ba Amadou Mamita Kane da nga koo takk ci farata ak sunna su Muhammad danga dem ba Mauritanie takk ko fa baayam ak yaayam toog ñu may la ko mu doon sa ñaareel lan moo tax nga koy nëbbu sénégalais yi lan moo tax ngay nëbbu sénégalais yi bëgg ñu gëmloo Aïssata Biliba la guinéenne cent pour cent de père et de mère nga bëgg ñoo gëmloo Aïssata Biliba Amadou gis nga ragalal yàlla ak lu mun a am dellool sa xel ci yàlla yàlla mooy joxe pouvoir ñaari jabar nga am amoo benn jabar kese tollale leen tollale leen mamita kan sa jabar la mooy sa ñaareel am ngeen seex góor ak jigéen du jumelle góor ak jigéen mamita kan am ngeen seex góor ak jigéen muy sa ñaareel nga demoon ba mu Mauritanie takk ji ko fa indi ko Aïssata Biliba nga takkee ko cees mu jógee Guinée donc il faut assumer loolu rek mun na tax sénégalais yi la parce que dañ naan kii def ñoo fen bàyyi leen xale yi ngeen di takk di di jiital kii di nëbb kële di ci def yooyu rafetul day tas kër boo leen mënul nekk ay polygame ngeen bàyyi ko bu kenn forcé wu leen ko bànneexu bakkan war tax ngeen takk kii toroxal kee wàcce kee jël kii yëkkati kii wala ngeen non ñaari soxna nga am jubóowuñ nag on le sait ay sata Ba dafay bugg a nekk au devant di fay ay di fay di fay snapper yi di bugg a wane boppam ak yëkkati boppam ak yi naan parce que moo am foofu ay doom yu mag mais eh, mamita kan sa jabar la ka takk ko ci farata ak sunna su Muhammad am na ñuy sax danaan ay takk suuf la takk du non du takk suuf parce que euh, lu ma mbokk mi wax am na lu metti nag mais mbokk mi moo di ay sat euh, Mamita Kane Amadou Ba takku ko takku suuf man leen mais <laughs> takku suuf parce que euh, Aïssata a Ba yóbbu ko mu ne ma non lan mooy takk suuf ma ne ko ah, suuf mooy takk bu ñuy nëbb te mu ne ma noon loolu du takku suuf takku suuf mooy bu fekkee ni nit ki da ngaa takk ay mbokkam sax yóbbuñu ko jigéen bi ñëw ñu dem wuti ay ay ay ay ay ay euh, ñu takk ko te ay mbokkam sax yëguñu ko yooyu mooy takk suuf mais Amadou takkul Mamita kan takk suuf daa dem ba Mauritanie toog joxe guro waxtaan fa ñu may ko jabar donc loolu du takk suuf ay papaam papay euh, euh, Mamita mi ngi fa toog yaayam mi ngi fa toog loolu du takk suuf ma ne ah kon de bu dee loolu la kon loolu du takk suuf damaa foog ne woon takk suuf mooy nga nga am premier jabar jaar ci suuf nëbbatu takk beneen jabar donc loolu kooku takk suuf la mun ñu ne ma non loolu du takk suuf. takk suuf mooy bu fekkee ne yow da nga da nga dem takkanteeg jigéen ba te ay mbokkam sax yëguñu ko. am loolu boo day fekk jigéen jooju lamb wala amuluy mbokk wala mun nekk orpheline xëy na parce que man mënuma comprendre nan la ab jigéen mun a toogee di nëbbutu say mbokk nëbbutu sa baay nëbbutu sa yaay nëbbutu ñëpp. mënuma comprendre voilà donc ça man maay wax man je ne suis pas du Sonko lu mu wax dafa leer naññ daf na ne yéen pastefiens yi yéen waa parti Pastef yaa ngi dégg ngeen bañ a wax ci ñooñu man bokkuma Pastef man bokkuma Pastef Sonko na mu contrôle pas Sonko ne ne détient pas ma bouche du Sonko moo mooy wax lu may wax ak lu ma dul wax j'ai existé avant Sonko di def ay live di xeex avant Sonko di rap avant Sonko di casse avant Sonko dama gis muy subir injustice ma jàppale ko nekk ci je ne suis pas un fils de Sonko ni un partisan de Sonko ni un élément de Sonko day leer man c'est pas Sonko ne peut pas me dire ce que je dois dire ce que je dois pas dire moom ci boppam am na respect boobu musul waxal na ma waxal lii wala wul wax loolu donc bul fi wax loo Sonko lu ma waxut wax na bu a bien cité des noms daf ne yéen waa Pastef bokk ci moom man bokkuma ci yéen du ma waa Pastef bul ma fa dugal bokkuma fa xaw ma seen carte nu mu mel musuma jënd seen carte bokkuma ci yéen je suis un rappeur activiste combattant libérateur di xeex injustice loolu moom ma booleeg Ousmane Sonko ma adhéré ci idéologie parce que dañ koo nuróole contrôlé wu ma de kon Sonko nee na yooyu da nga yóbbu ci ñi muy contrôlé voilà donc comme nu ma ko mën a waxee euh, Aïssata Biliba ci boppam mu accaparé tout mais dinaa leen xamal daal ngeen préparé ko xam ko ne Amadou Euh, Bayal Ba Amadou Bayal Ba ci boppam ñaari jabar benn guinéen ak benn mauritanien benn guinéen ak benn mauritanien loolu leer na voilà ngeen xamee ko noonu te nag jubawuñu du ñu jaarandoo taal te yaakaaruma ne sénégalais yi dinañ tànn ak président bu ay jabaram sax jubawul ku munul gérer ku munul gérer ay jabaram waaw kooku nan ngay gérer dëkk Ousmane Sonko dañoo gis ñaari jabaram yu muuru toog di waxtaan ñoo bokk benn kër di fa yeewoo di dund polygamie ñoom ñaar ñëpp muuru nuroo xàmmewuñu leen sax bokk lu ñuy wax bokk idéologie bokk lépp mais aamadul def leen séparé ndax jubawuñu kee di waxee gauche kee di waxee droite kee jógee Mauritanie mi ngi Mauritanie jamono ji présentement nii sax Mamita Kane nii nii may wax ak yow nii mu ngi Mauritanie Aïssata Bili Ba mi ngi Mermoz duñ tuddante duñ jaarandoo taal xaw ma nag kañ la Sénégal di fal président bu ay jabaram jubóowut ku munul jubale ay jabaram nooy nooy defaree Sénégal sama gars yi jabar di nëbb deuxième ba di làqutu munoo jubale say jabar kooku de sa waay boo leen ko <laughs> boo fale pale ba dina mel ni tulleeg male parce fu nekk nii sax ña ngay commencé di xëccoo seen biir mbokk jabar mamitaaya ña ngay génn wooma ci suuf di mer waaw ah, waxal Amadou lii moom waxal ñu ko Amadou lii rafetul ñaari jabar la am amul benn kese waaw day jël ay bili di ko jiital pourtant mamita xale bu ndaw la 39 ans la am mu takk ko siraatal mustaqim lan moo tax muy nëbbatu lan moo tax du ko wone moo gars yi di leen ko nëbb dama ne loolu moo am ku munul gagné quartier ku amul programme ku munul jubale say ñaari jabar kuy nëbb benn jabar ba di làq beneen ba ah kooku de boole koo vale <laughs> dëkk ba dina tas <laughs> dëkk ba dina rajoxoo de dina rajo toj tojal ah, man de sa waay ku munul jubale say ñaari jabar man xaw ma nan ngay gérer dëkk ku nekk nag sa sa famille respective ya ngay yuuxu gauche yuuxu droite voilà bi bi bi Aïssata Bily Ba nag kooku moom Guinée la waa Thiès la sax nag ba mi ngi Thiès mais Guinée la voilà loolu mu ne leen leer waaw mu ne leen leer ab Guinée la cent pour cent nag Aïssata Bily Ba Guinée la waxuma dara ci Guinée ni parce que man panafricaniste la papa mi ngi tudd Pape Alassane Ba mooy baayam Aïssata Bily Ba papa moo tudd Eh, Pape Alassane Ba ñu jóge ca Pitta ñooñu Pitta la ñu jóge Pitta du piita Pitta yaayam di Mariama Ba jóge ca Pitta ñu am doom bu tudd Sadibou Ba jóge ca Pitta Mamadou Saliou Ba jóge ca Pitta Bili Ba Aysata Bili Ba jóge ca Pitta Omar Ba jóge ca Pitta ñu daggal leen billet ñu daw jóge ca Pitta ñëw ca Thiès jamono jooju ki nga xam ne moom mooy euh, Amadou Bay euh, Bayal Bayal la tudd du wuri damay gis gaa yi naan wuri ba non Amadou Bayal ba la tudd du wuri ba wax dëgg rek yàlla Amadou Bayal ba la tudd la dëkk la tudd juddoo ñaari tali koñ bagaar Cees googu la xamee Aysatu bili ba takku ko mu jóge ñoo jóge ca Pitta yaayam di Mariama Ba baayam di euh, pap Alassane Ba <laughs> nay leer donc foofu am nañ fa comme ni koy ko waxee tu neto bandum am nañ fa guinéen am nañ fa mauritanien pour muy leer voilà maintenant <coughs> Sénégal a ngi noonu nag man de lu ma leen mën a xamal mooy nañ góor góorlu ba mu am ay élection yoo xam ni du Macky Sall mooy choisir ñu fay dem Ousmane Sonko dem Macky may nit yi jàmm dem na yoonam Ousmane Sonko ñëw Amadou baa ñëw Mame Boye Diao ñëw. ak képp ku bëgg na ñëw sénégalais choisir kuñ choisir muy noonu sénégalais yëpp jox seen suffrage universel mu mu kuñ choisir kooku dem loolu rek lañu laaj Macky damal ci jàmm bàyyi ñoog suñu dëkk bàyyi ñoog suñu élection ñu bëgg a bokk nañ bokk wax ji jeex jàmm na ñooy du Macky Sall moo ñuy imposé ki fa gañe gañe am ay élections yu transparente ki gagné mérité ni moo gagné kenn duñu ko forcer ñu bañ a am ay président par défaut pour muy clair ay élections libres et transparentes loolu rek lañ laajte bu loolu amul nag bu jàmm du fi am.